polémiste est-ce que mën nañ la ko woowee. polémiste je sais pas mais en tout cas man je suis quelqu'un boo xam se ni j'aime prendre position mhm. parce que suñu boroom jox na ma kàddu y a des gens qui m'écoutent mm -hmm. donc euh, ci réew mi laa bokk mhm. defuma politique defuma leneen mais mhm. mooy artiste la je suis <coughs> si li may bind ak si li may défendre mm-hmm. Mm-hmm. donc su ma gisee des choses yoo xamante ni je pense que sama kàddu mën na si éclairer wala mu guider si je le dis mm-hmm. il faut dénoncer les choses parce que dañoo nekk si monde boo xam si ni internet et prend beaucoup de d' impact si société bi y a beaucoup de choses qui s'y passent nit ñi parfois ils sont insouciants et ci seen ay réaction ci seen ay commentaires wala affaire yu demee noonu donc soo nekkee au devant de la scène yàlla may la kàddu te boobu noonu nga jëriñ sa askan cas peut-être man je ne détiens la vérité. Hmm. mën naa wax juum mais en tout cas sama damay bëgg continuité sama musique ma koy utiliser. ci hmm. samay page de réseaux sociaux wala yi demee noonu. maanaam li may wax ci sama musique boo ñëwee loolu nga fay fekkaat. mooy je hmm. défends toujours le Sénégal les opprimés le bas peuple les injustices affaires yi demee noonu donc je peux pas me taire. c'est comme si c'était une obligation dès qu'il a un boo xamante si nii. sentir naa si wax war naa si indi xalaat débattre si ak parce que je boo xam te ni amul barrière entre man ak mes fans je vais appeler ça mes wala man j'aime mhm. partage avec sur les réseaux sociaux mhm. da wax ma tontu la nga inbox ma ñu waxtaan ma wax la sama xalaat mhm. donc euh, ce qui fait parfois mën naa jël position yoo xamante si nii c'est repris c'est mal interprété wala ça n'arrange pas d'autres personnes donc mu jël yenn forme yi après ñu wax que ni wow la gaa la la wax na lii wax na la mais j'essaie toujours de me fi ma xalaat ni fa la dëgg nekk mhm. après du ragal quoi du moment que xalaat na avec ma conscience que li mooy dëgg je prends mes positions et mon courage de le dire mhm. quelle que soit critique bu si mën taam wala wala rêve mhm. temps yaa ci ban combat par rapport ak euh, alerte yi alerte waaw non. yàgg ci ban coow temps yi. <laughs> non nekkuma si coow quoi nekkuma si benn coow maa ngi nekk toujours si li ma nekkoon rek. Mm-hmm. di di défendre. Mm-hmm. le Sénégal damba bas les mm-hmm. oubliés. doon naa wax aussi yàggul dara si. Euh, formation bi ñu war a defar ci hôpitaux yi mhm. parce que aussi bu ñuy def critique bi il faut mhm. pas médecin yi jël ko personnellement mhm. on sait que ni joxuñu leen cër bi war ak gëdd bi war ak moyens yi war c'est vrai parce que médecins yi ñoom ñoo waroon nekk métier bi nga xam se même dañ ko war a surpayer pour que parce que ñoom li ñuy occupé moo graaw mm. santé dafa graaw dafa yéeme mm. donc ñoom ils font beaucoup de sacrifices nous on les respecte mm. mais quand les gens prennent position c'est pas pour être méchant envers eux mais on sait très bien que l'accueil bi am ci hôpitaux yi baaxul baaxul c'est vrai on que nit ñi dañuy wax yow d'une manière très dure très parfois arrogante et ce sont des réalités yoo xamante si nii ku nekk si ñun dund na ko. sa mbokk ku yóbbu hôpitaux euh, sa hôpital sa sa mbokk. dund nga fa ay affaires yoo xamante si. c'est vrai que c'est vrai qu'on dit pas ñëpp. Mm-hmm. du ñëpp dafa dafa dafa récurrent Sénégal. ci domaine yëpp. Mm-hmm. accueil bi sa laisse à désirer. yi baaxul baax si boo demee gis nga policier da lay arrêté. léegi looy fay sax policier bu la arrêté rek sa xaalis sax da nga koy saraxu nii. bu la arrêté déjà la mm-hmm. base il fait son travail yow doo ennemi mën nga nekk mm-hmm. jarbaatam wala mm-hmm. frère mais bu la arrêté rek y benn ambiance bu électrique bu yam sant seen diggante. Euh, ni mu lay aborder day agressif ni mu lay laajee papier day agressif donc du coup. am na des gens yoo xam dañuy jaawale autorité ak gëdde mhm. mën nga autoritaire mhm. ànd ak fulla ak fayda ba kenn du la yàpp mais c' est pas pour autant a gëdd moo mënu du sol rek pouvoir moo tax mu war a pouvoir man nangu nañ nangu nañ samay këyitu oto yëpp mooy problème mu formation waa ji da doon da doon tooy naan waaye booy looy def yooyu dama mujj dem fay et tout ça mais il était tellement bien avec moi les arrêté léegi balaa émission bi. non non non non <laughs> da si dajeeg da si dajeeg des gens très respectueux. mais fu mu amee des gens respectueux qui respectent leur travail. dana am aussi d' autres gens qui font du n'importe quoi. ce sont nos réalités bu ñu ko waxee xam nañ ko bu ñu ko waxul on fait semblant. mais on sait très bien que ni formation yi. des na nit ñi bu ñëwee si hôpital yi ak seen métit. ak déjà métit. ak problème mu moyen. bu ñëwee ni nga ko war parce que comme ni mu la ko waxee rek. Ah. boo demee Europe di faju parfois tu as l' impression nii ku jigéen ki lay faj daf la nopp. Mm-hmm. parce que elles sont tellement cinq la ñuy nekk c'est une vérité. daa ku kuy indi café. Mm-hmm. ku lay teel saag bi. Mm-hmm. ku naan la est ce que saba ki naan la ak ku naan la euh, qu'est-ce que je vous offre. <laughs> c'est vrai mais lu tax mënuñu mel noonu. pourquoi on s'interdit d'être comme ça à chaque fois on comme ça chez les blancs comme ça. on sait que am na lu baax si ñoom mais pourquoi on ne copie pas ñu def ko au 28e siècle 2017 à chaque fois on dit bu doon tubaab yi la bu doon tubaab yi la mais tubaab yi c'est des humains comme nous il faut ce genre de comportement loolu yooyu ñu def ko ci formation yi jàngal nit ñi moo xam ni malaat bu ñëwee y a une façon boo koy accueillir parfois dañuy tubaab yi dañ lay caresser téye sa loxo jël sa tour xam ko mais loolu sax du yëfu tubaab ñun mag ñi suñu yaay yi suñu papa yi civilisation ñu leen ko ëpp comme ça affaire bu du ñii ñoo gën a am savoir vivre c'est une question de différence culturelle ñun nag ci li fi maam yi bàyyi tout am na yar am na toppatoo on n'a pas besoin du psychologue. merci ñun boo amee problème ah, da ngay dem waxtaan ah, ak sa yaay da nga koy dem waxtaan ak sa gis nga modèle social question de booy wër modèle social booy wër hmm. fii la c'est-à-dire boo wàccee sa ànd da mujjee te égaré mm-hmm. mais ñun bu ñu wàcc woon suñu ànd mais nous sommes peuple parfait Mhm. fii Sénégal ak nit ñu moo ñaale ci ay kàll pëndeg séeréer bi ci ki defee noonu ak nu ñu daan structuré suñu ay famille nga nekk si biir fami nga gis ay wujju xamee wu doomu bàyyi doomu doomu affaire yi demee noonu mais plus ñuy dem plus on essaye de copier li doxul parce que boo demee ci dëkk tubaab bi seen model boobu ñu daan dundee baaxatul léegi c'est vrai c'est vrai couple boo gis tas na dañuy xëccoo ay doom da ngay am say doom amatoo droit gis leen ñi ngi ci tribunaux yi gauche et droite hmm. te pourtant tu vois des gens ici loolu la fantasme ñoom vie boobu ñu ngi yàkkamtee génn sori seen parents yi couper le cordon avec leurs parents dund yaakaar nañ ni loolu mooy modèle bu baax bi mhm. alors que loolu fantasme la rek liberté du liberté mooy nga toog sa watu yaay di ko dimbali parce que bi nga nekkee liir moo la doon dimbali mhm. liberté mooy nga toog sa watu papa mu dem ba attantul satalaam bu bëggee julli nga indil ko ko mhm. su ngeen demee ba war a yeewee ko dem ci kër naturellement lay amee te ñoom mhm. ñoo lay yeewi te da am mhm. bénédiction te sa mhm. barke foofu lay jógee donc ñun ñoo yor li baax mais parfois dañuy wàcc suñu ànd dem di di roy leneen loo dem ci dëkk boo xamul fii en Afrique fii au Sénégal mën naa mën boo xam première chose dañuy ñëw waaw yow doxal ci mbedd jox la nga naan sukk taxaw te di la di di pour rek teral la wan laaj la noo sant foo dëkk foo kii

<laughs> dem nga loolu da ngay wér sa xel day dal mm-hmm. Mm-hmm. mais ah, nañ leen fay nañ leen fay nañ leen fay may jàmm dafa am ñu ko fi jiitu ndax harcelé tu vois mais demal fay wax nañ ko ci ci suñu son boobu bëgguñu ko waxaat muy nuru dañuy dal seen kaw mm-hmm. mais wax nañ ko avant yii di ñëw demal fay fële soo paree doo ko teew ab sëg nga fi indi rek ñu def ko néew Euh, ku ku ñëw amee métti dafa soxla ku ko dalal ñàkk kersa infirmière yi léegi ñëpp ragal doo modèle doo modèle yërëmoo say malade mhm. ñàkk contrôle moo waral laisser aller bi mhm. manque d'effectif excuse tàppale bi mhm. c'est vrai que ni parfois manque d'effectif bi ci loolu ñu bëri di reposer pour mën a seen liggéey même suñ la fayul du tee liggéey ak passion ak yërmande mais loolu parfois excuse lay doon on n'a pas assez d'effectif on n'est pas il a pas de a sacrifice ils ont fait les études qu'il faut malheureusement dañ leen fay xaalis bu baax teg leen ci conditions yu baax. malheureusement malheureusement pour dem ak euh, bienveillance c'est dans tous les domaines am na ci yu yu yu baax ak yu ah, ay brebis galeuses. ba Sénégal <laughs> euh, yu baax. ay sages-femmes yu baax ay infirmiers ak infirmières yu baax ñun ñëpp koñ yi. y a toujours eu koo xam ni day liggéey hôpital. mais bu ñu amee wee buy metti sax moom la ñu gën a seeti. mu toppatoo ñu et tout mm. ça y tellement dans ce pays. donc yàlla na euh, ñi yëngu ci hôpitaux yëpp di ci liggéey mel comme ñooñu. Mhm. exactement c' est pas pour moi jeter des fleurs mais loolu aussi ñun def nañ ko série c' est la vie euh, c' est produit par Canal. Euh, boo xamante ah, ne c'est vrai que je t'ai vu sur Canal. voilà trois ans. ñu koy tourné loolu la. yow def nga tour du monde voilà c'était ça li xew tey. c'est la vie la relaté depuis trois ans. donc euh, voilà c'est produit par Canal ça passe sur les chaînes européennes. Ah laquelle par exemple. A plus TV5 euh, donc et d'autres chaînes yu koy yu koy jël donc yooyu yëpp di jël <laughs> yooyu yëpp et tout ça mm-hmm. ak d'autres chaînes yoo xamante ne de fàtte naa en tout cas naa beaucoup léegi Afrique jaww na Afrique bi yëpp mm. euh, loolu nag lu boo koy xool mm. ça s'appelle euh, une vie à ratanga. waaw loolu la dañuy suñu vie bi yëpp ci benn centre la mhm. centre boo xam dañuy sensibiliser mhm. ki am ki nekk en état mhm. voilà ñëw ñu war ko toppatoo accueil tout ça nga gis corruption ci biir centre yi nga gis euh, saleté bi nga gis mbuxum bi comme ni ñu koy waxee di guerre euh, ki nga sage femme bi ñu war a rang mu ñëw xam sage femme bi na ko eh, ça va bien neexal ko waaw neexal ko tout ça boo ñu mayee rek ñu tàggoo parce que onze heures pile jot na <laughs> et am naa fi ay communiqué ak anniversaire yi laataa ñuy tàggoo bay libéré nit dof euh, pour mu dem <laughs> àggali préparatif spectacle spectacle bu mag bi show of the year euh, ce sera donc pour ce samedi donc léegi bu ñu paree dinañ leen bàyyeeg Eva.